fonk barab bi ak wormaal ko moo tax mboolem taalibe yi ku ci dugg ci jumaay Tuubaa ju mag ji doo sol ay dàll tànku nen ngay def wala nga sol ay kawas yenn waxtu yi nag naaju day tàng lool ba tax na karo yi boo ciy dox tàngoor wu jéggi dayoo moom moo ciy bàyyeekoo ba ñu fiy dugg dañu koy yëg bu baax a baax Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général des Mourides fas yéene soppi karo yi def ci yeneen i karo yu yees yoo xam ne mën nga ci dox waxtu wu nekk te du tàng yi nga xam ne ci la ñuy ci la ñuy ci jumaa ji nga xam ne dafa laajoon yeesal ndax léeg-léeg tàngoor rek yu mel noonu ci nekk euh, kilifa yi ñeewant ci taalibe yi amoon yéene sopp ko kon loolu moo waral ñu tàmbali liggéey bi waaye nag des na ko gën a yaatal ci yeneen yeneen anam euh, Cheikh Bachir nag joxoon joxoon ma ci ndigal Euh, boole maag sëñ Moustapha moom mi nga xam ne moo moo fi moo fi teewal njabootu waa kër waa waa Njuga Keppe famille Njuga Keppe yëpp. Mm-hmm. yàlla ko sama ram dolli njëggal ak yërmande. Mm-hmm. Mm-hmm. yàlla dogal moom it euh, lu mu fi bàyyi woon ay karo yu yàgg yu fi bàyyi woon. nga xam ne ca pale ba la jëme woon. palais ba ñuy wax palais Njuga Keppe. loolu ko taxoon a jóg ci ci jamono boobu yàlla dogal boobu ba léegi karo yaa nga fa waaye kon suñu borom booba dogal na ne euh, karo yooyu ci jumaa ji la waaw kon. Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadre moo fi teewaloon Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou ci ndorteel liggéey bi. mu ànd koog waa daayira mu xaddamatul ma bi nga xam ni ñooy saytu lépp lu jëm ci jumaay Tuubaa ju mag ji sëriñ bi leeral na yéene gi nga xam ni sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru am na ko ci jumaay Tuubaa mag ji kon nag liggéey bi ñu tàmbali tey euh, euh, liggéey la boo xam liggéey bu am solo la ñaari karo du ko seex am na ci karo yu weex balaa karo am ci boo xam garanti la garanti nag karo bu seer la ci gën a la bokk sa waaye day tàng boo demoon boo demoon Madina sa am na fa waaye dañ ko mujj dindi te fa ca gën a bari ndax karo bu seer la waaye ñaar li ci ëpp ci biir la koy jëfandikoo foo xam ne aw tàngoor du fa agsi bu dee tàng day day téye tàngoor boobu ma ñi duñu fi mën a jaar moo tax penku bi euh, ci jamono suñ siir ko soppoon defoon nii ndax bii euh, alhaji yokkee moo ko fi njëkk a def ndax karo bu karo bu seer boo xam ne ci gën a seer ci àdduna lu waaye dama boo fi masaan jaar ñu sërmal ajuma léeg-léeg da ngay yërëm nit ñi hmm. da ngay gis nit ak pësëf musum bi daal musum bi daal ndox ba ci yàgg nga gis ne mënatu mënatu koo dékku ndax ndax tàngooru métti sama classe bi nga xam teel lañ koo xam sax ay kawas lañu yóbbaale waaye xëy na ñëpp tolluwuñu ay ay ay ay jéeg te Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké dégg naa ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu wax ne wax na ne sori dàll ci penku bi bari na lu ñuy ñàkk te mu ko baare ko ne ba ba ba ba maa ko maa ko defaroon ci yooyu jamono ba nu waratul ko fa jaar ngir bañ nit ñi di fa sori dàll kon nag liggéey bi moom jumaa ji la mooy ndigal ndax bu àggee ci ne bu leen ko yëftoon malaayika yi def ko kon loolu moom lu sotti la ba liggéey bi nag waa kër El Hadj Babacar ñu gën koo xam ci Ndiouga Kébé ñoom ñoo ko sasoo fas yéene ko liggéey ba mu àgg. ci sëñ Moustapha Kébé nee na moom amul kàddu yu sànni kàddoom mooy sa kàddu dugg na ci biir nee na xanaa dañuy sant rek cant koo xamante ne nii am na fa mu tàmbalee waaye amul fa mu yem ndax bu àllaa gi Ndiouga Kébé daan jëfal sëriñ bi. dem ba am ñeen fukki at ginnaawam ab liggéeyam ñëwaat duggaat ci biir liggéeyu sëriñ bi nee day war na loolu kat liggéey ba sëriñ bi nangu na ko ndax mën a nañ koo bëgg te duñ ci am ndigal mënoon nañ ci am ndigal tamit te du jàppandi waaye ñaar yëpp nag daje bëgg gi am na ndigal li am na kon nee na ñu sant sëriñ bu baax di sant cant googu nga jotal ko sëriñ bi. sëñ Moustapha nee na moom benn kàddu rek la ci am loo xam ne da koy dugal ci sa wax gi di ko seere ndax nee na Allaaji Njuga Kebe bi mu tukkee dem Baxdaad dem siyaare ji barabu Seydina Aliyun karamallaahu wajhahu nee na ñam àndaloon daf ci am ko gis benn làmp boo xam ne lépp day oor nee na mu yéem làmp ba nee na Allaaji Njuga ne ko ci yow day xamoo li ngay wax daanaka rek daa ne ko suñu waa ji ya Tuubaa day am na fi junniy at am làmp bi bàyyil ba suñu waaji am junni at fam tëdd waxuma ab lamp waaye barab bépp lépp or lay doon jumaa jëpp or lay doon waaw nee na noonu la ko waxee woon nee na kon nag lii ni nga ko waxee léegi rek loolu lay dëggal nee na jëla ñaanal baax a baax sa taxawaay yi ndax nee na bala sëñ bi booleeg ñoom ak léegi lépp ci soññu ak i taxawu boole leen ak sëñ maam Thierno bañ def lépp ba di ko tàmbali tey suñ borom yow tamit kàttanal la dëgëral la ndax sa taxawaay yoon yépp rafetlu nañ ko taalibe yëpp rafetlu nañ ko. waa kër El Hadj Ndiouga Kébé yi nga xam ni ñoo sasoo bi la liggéey fa yéene ko liggéey ba mu àgg sëriñ bi sant na leen bu baax a baax ci seenub yéene ak seenu jëf waaye santaale seen waajur wi nga xam ni ay jëfam ci jumaay Tuubaa ju mag ji ba léegi mi ngi fi des. ñoom ñi seen waajur am taw féexe te sëñ sëñ Abdul ku ko xam ko ne xam ne ku ma noonu segg mbir la ndax danaa wax naan bañum yoon wi mooy tàllal sa loxo man bañu yoone modi modiyati li xayrihi indi indi junoon wa qaada li xayr al xalaal wal funoon moo tax bari waa ko mos a dikk si dëkk yi bëgg fee def dara ko nangu moom nag mooyoon na mu liggéey ci jumaa ji liggéey na liggéey bu bëree bëri ndax naa ci nett li benn kii ndax Cheikh Mamadou bi liggéey bi àggee ba jumaa ji àgg ndax moom dara laa Sëriñ Tuubaa ndigal waxtu ne da daa bëgg nga jox ma ndigal soxna Aminata Bousso dafa daa jaarale ay lettres yu mu ko daa bindee ba sëñ bi tàmbalee jumaa ji nag woo leen moom ak si Cheikh Mamadou Moustapha ja ak sëñ Massamba ak ñam leen boole loon Cheikh Ibrahima Fatou moo doon jëwriñ ji liggéey bi ak Cheikh Issa Dieng moo doon taxawu jumaa njaarim jumaa waaye ci la bokkoon euh, sëñ bi ne ko liggéey boobee na nga fexe ku ñëw na la ca fekk ku dem na la ca bàyyi na nga fexe ba ndigal li nga daan laaj itam euh, na nga fexe bu la ca kenn mën moo tax mu def ko yitte suñ baar mos na maa dégg muy netti décompte yi ñu def ñu daa def nii sax bu ko daa joxe moo ko daa toppal boppam xaalis bi sax dafa daa yëkkati di ci fas nga xam eh, liggéey bi waaye ni mu yore sëñ bi kon bi liggéey bi àggee daa jàkkaarloo sëñ bi na ko eh, fii leen toll ak yow ndax fële suñ doole fële fële suñ doole toll ko ñu def ko moo tax ñu bari bi ñu déggee ñu ne alaaj Njóoba def na woor ci barabu Sëriñ Tuubaa ñaa mm-hmm. fekkoon waxe Sëriñ Fallu ja ñoo xam ne baatin boobu mu ak sawat kon liggéey bi ngeen tam daal di yéen njabootam yi mm-hmm. te yàlla def ren la am mm-hmm. kon loolu tawfeex la te mu jëmewoon ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa yéen itam bi ngeen jël ko def ko addi ki nekk Sëriñ mu ne fi ba léegi ni mu dem ba Cheikh Mamadou Mountakha di ko commande ngeen war koo jënd mu tombeek seen xalaat kon loolu tawfeex la ak day mel ne payug suñ tubaab la rek xasee gi ma suñu affaire jox xam naa dinaa leen ko jox ngeen tasaare ko dañ ko ko jox léegi mu joxaat ma ko waaye boo xoolee ba ci biir najsil muxsinina la ko la ko suñ tubaab tànke te gis nga yaxdimuhu fuaadu minni wal yadu ilal jinaari wa hudahu al afidu loolu da firndeel la suñ tubaab moom daanaka nekkul sut fa loolu lu mu doon rek lu mu waajal la kon nag yéen itam liggéey gam liggéey la suñu Tuubaa rek moo rogalaat ci yéen ba tawfeex ji ngeen am def ko ndax ay liggéey la yu bari yoo xam ne sëñ bi war na ko fi defal boppam ci jumaa ji ndax gis ngeen ne parasol yi gis ngeen ni mu mel euh, waaye sëñ bi moom xam ngeen ne université dafa nekkoon liggéey bu rëy bu ñu waxtoon boole lenn moo tax ndegam cet na nag am na yeneen liggéey yoo xam ne war na ko fi àggale te ñu ngi ci waaye lii moom yàlla def na ñoom ñoom tawfeex tàmbalee ko laata sëñ bi def liggéey boobu donte doon def na ci lu bari nag ndax xuba yi yëpp moo ko àggale boo ko doon xool ëpp na sax un milliard waaye liggéeyam décoration day day moo mel noonu day seer te doo ko mën a xam kon ñu ngi sant bu baax di leen ñaanal yéen suñu Moussa day yóbbante ñëw ci sa njaboot gépp mboolem ñeen ko àndal di ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ngeen jëf ko mu tàbbal ko ci liggéey ba seen waajur ji liggéey ba Sëriñ Tuubaa ci nekkam tuyaaba jaay lépp fekk ko fa te yéen itam ngeen bokk ca ak ñun ko fekk ñëpp ak bépp taalibe ak bépp jurit salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. fu ñu toll ñuy nemmi loo xam ne lu ci war a yokk la ni ñu ko xamee jumaa moom ndegam jenn jumaa mu dul ak garawaat na jumaay seen tuwaay ji nga xam ne murit yi fu ñu toll seen yéen fekk duñ ko or duñu am jàmm te jamono mën naa dox ba lu ci bari doon ko ndax sëñ moom mbiram moo dem noonu. di ñaan naal yi nga xam ne moom la naal mu àggale ko ni ni ni mu gënee di ci am yaakaar bu baax ndax ñi nga xam ne yàlla yàlla dogal ñu tabi seen loxo tey kenn du guleet ndax ay wanteer képp raj ni ko ma koy def ci jumaa ji moo defee décoration bi ci biir ak yu bëree bëri yoo xam ne gannaaw buñ ci buñ ko jullee daal moo ci njëkk a dugalaat loxoom ba lu bëri moo ko ci taaral kon ñu ñaan ñoo tuuti moom dool yërmandeem dool leeram wane ko sëñ ba Cheikh Khadim ñaan njabootam gi fi bàyyi tamit suñu borom teg ci loxo ba lépp lu mu yéen ko ko ni mu ko góobee ba def seen wàllu bi nag ñoo ngi ko fas yéene door ci samedi bi dëppoog le 11 mai 2024 lépp yemb na mboolem karo yi ak li nga xam ne moom moo ci aajowu ngir defaree ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee lépp nag ñu ànd kook sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Moustapha Bassir mi nga xam ne sëriñ bi moom la dénk lépp lu jëm ci saytu gi ak taxawu liggéey bi ba keroog muy àgg.